Zal Baol Zal a génn ko tuural ndox mi naan lamba gi nii bi Zal daal baal mu ngi mucc dem fi nga xamante mooy open press ba ànd ay mbokkam ki naa naanam xoolee caatu ba sa nekk si wet xale bi bëre bëre bu rëy bi moog Luis Ndiago moom caatu rëbës ñëw journée bu am solo mooy le 10 ñu ne kan ak kan ñu ne Zal Baol ak caatu yaraax di journée Baba Diaw lamb ju neex ñaari xale yoo xam ne ñu def ay preuve ci lamb am nañ def ci lamb lu bëree bëri. mais nee na xale bi tamit ku jërë bàyyi xel ci lamb la muy caatu rëbës démb nga daanu mel na yaa daan loolu am solo la ci lamb Bawol Bawol yaa ngi tëj yuuxu ndeysaan koy tàccu moom Zal Bawol ñu ànd ak Zal Bawol gaa yaa ngi suy xorom si dée baa dée bi ak xar fa xuufa yi xoolal ma lii lamba mel nii waaw bu leen suy bay waaw di tuus Zal Balo ngoog mbër maa ngoog mbay guy gi mbay guy gi démb yaa bëri bëri bu rëy bi. yaa ngi waay mbër. lamb des fois lay tuxu naa la caatu rëbës abu fay naa la abu dem nga bërë bërë bu rëy sa diggante ak Luis Ndiago waaw dëgg la noonu la ma doon demee làmb la woon rek ma ko ñaan yàlla ko ndam di jik su ma amaatee combat yàlla may ma ndam Luis Ndiago su ma daanee war na maa mën a daan doo ut may ut xëy na moom la yàlla àndal si moom noonu démb yàlla ko ndam di jik ñun ay xale amaguñ dara ñuy perte ak wala ñuy ñàkk xale amaana tur moo ñu teel solo rek mais dama gudd fi dara mais waaw Papa Yade amoon na lu ñu daal. lan ngay wax Zal Baol si diggante moom ak yow mooy champion la. waaw Zal suñu grand la. Zal Baol sama grand frère la. bu amee su ma amee combat dañuy sonn ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndax dinaa comprendre ma koy wax Thiatou Yarakh bu yéexee du gis du gis dara bu du ma ko supéré Zal ci kàttan yaa suñu borom waaw. lan mooy sa kanam instant yii sama kanam bëri man xëy du ma laaj maa ngi fu ma gars jaar yaa ko doon léegi sama combat tawaat ñuy wax sama combat man par naa pour mbër yëpp ci kàttanu yàlla. wuyu ma may sant DG Seydou Diop damaa bëgg a a may may sant DG Seydou Diop. du ko ñaanal li mu bëgg DG yàlla ko yàlla defal DG Seydou Diop jëlee na ma ay car jëlee na ma ay tiset may ma ay billet barke alxuraan ma ko a DG Seydou Diop man caatul ma sa doom maa ñaan li nga bëgg ci àdduna yàlla ko yàlla defal DG Seydou Diop sama waale ak di am mbégte mu rëy nag tey teew fii ci rëbës nag li ko waral mooy doomu rëbës li ko waral mooy doomu réew mi li ko waral mooy doomu ndakaaru yaakaar naa ne ñaari doomu réew mi ñooy daje tey caatu yaraax ma nga fële ca yaraax waaye tey ñu ngi fekk si fi nga xamante ni mooy Zal Bawol fii ci rëbës fekk ko fii ci dëkkuwaayam fekk ko fii ci feefam muy waajal combat bu mag ci digganteem ak ki nga xamante ni mooy caatu yaraax fële ci stade Iba Mar Diop maa ngi lay nuyu avant tout wax auzu ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaanal xalif général kuli murid di sëñ Mountakha mu yàgg fi lool am wér am gudd fan. ak bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi bàyyiwuñu kenn muy Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane ñu kenn ñu ngi sant ñëpp di leen ñaan yàlla ñu yàgg fi lool. nga am combat boo xamante ni combat bu doy waar la ndax xale bi ngay bëree tolluwaay màggam ci wàllu lamb est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel. non man aw leen loo xam ne dama ciy bàyyi xel ci côté sama diggante ak parce que fu ma jógee jaar naa daal fu metti ci làmb waa tëbu ma rek bëre grand comba dama tarbiwu mu metti loolu ma xuus ba agsi dafa nekk loo xam ne mënu woon ñàkk nag moo tax ñu jël ko parce que tamit adversaire la bu ñu respecté bu ñu bëgg yaakaar naa le 10 yàggatul boo ñëwee incha allah dañ ci am ndam waaw. Caatu nee na sama adversaire dama ko xam waaye moom xamuma bis ba la may xam. non lool man mis naa ko ci gars yi ko ci dajal da lay profité xam naa la di la jéem a ceeñ ci li ma ko wax rek sama yoon caatu yaraax mënu ko yàq man dama am plan de carrière dama am de carrière mënul yàq sama yoon. ci côté bu ne nag waaw. combat boobu ngay bëri caatu yaraax naka ngay préparé combat waaw comme ni ma daan préparé yeneen combat yi ñi ma ko doon àndee ànd koog sama papa Mbaye Pouy ak staff bi ay Zos sama gaay yëpp ñoom Omar Fallou mënu ma limb parce que su ma limbee damay juum dafa bëri. stafu Zal Baol dafa bari par rapport ak ñi ngay gis fekk am na ñoo xam ne tey dañu nekk ci àll bi di ma jàppale ci côté bu ne di profité nag di nuyu ay kilifa diine yoo xam ne dañuy sonn ci sama bis mooy waa Daaru Rahman di sëñ Modou Habib Mbacké tey ak bépp kilifa bu nekk ci ci réew mi rek tey ñi may jàppale dafa bëri ay kilifa ak tey chérif yi nga xam ne dañ may ñaanal yàlla rek tax di ma ñaanal ba pare di bokk man seen teraanga muy chérif Bahayda ak Cheikh Talla Bouya Cheikh Sidaati euh, bàyyi bëri na daal ñoo xam ne tey dañ ciy jàpp di profité di nuyu suñu am sa bu baax a baax a baax waaw. mbaa du combat ci ñaan nga ko teg. noo ñun ñaan moom dafa bokk ci gàllaaju mbër mais Caatu Yaraax man gëm naane ne man ak moom rek ñu daje ma jaarale ko fu ma doon jaarale gaay yi. waaw bokkuñu sax. seetaan nga ay combat non xam naa ko. waaw comme seetaan naa ko xam naa ko su ma ko xamukoon du ma ko jël dafa def ay përfam moo tax ma ñëw jël ko bu fi defukoon dara du ma ko jël xam naa ko waaw xam naa ko ñëwal leneen xam nga caatu yaraax bu baax caat bawal nañu waxante dëgg waaw caat moom gëm naa ne xam naa ko mais yooyu yëpp aajuwul tey li ma war a bëri moom maa ngi koy liggéey bis bi yàggatul pour ñu ñëw def li ñuy def jëlëfu dem suñu yoon combat bi dina am xeex. combat bi lépp lay am lépp. lépp lay am day am xeex day am bëri. waaw lépp lay am. lan ngay wax say supporters ak amateurs yi. waaw di wax amateurs yi ak supporters yi ñu góorgóorlu ñëw teel a dagg billet yi ñëw stade ñu daan jóge fi xool leneen. waaw loolu moo fi ne daan ko doon xool leneen. boo waroon daan ko xooli leneen. non man du ma dugg ci risque. tey ku ñaan yàlla dem bëri jeeg roi des arènes booy xaar sa diggante ak caatu yaraax risque. boo yeboo nga dem toog seen kër man du ma ragal góor man du ma genre boobu sax. ban appel ngay lancé. waaw li may lancé appel moom damay woo autorité yi nga xam tey ñoo nekk ci Rebeuss bi nekk ci Dakar Plateau bi di ma jàppale. tey maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ku mel ni suñu papa Diop si euh, Pape Diouf Seydou Camara tey Cheikh Abdou Khader Gaye bàyyiwuma kenn di woo Paul Douanier Paul Douanier Paul Douanier maa ngi koy woo bu baax a baax a baax pour mu ñëw jàpp ci combat bi. di woo euh, Papis Niang di woo Ousseynou Ndour marché Tilène maître Pape Sène maa ngi koy woo di woo maanaam kilifa yi ci jàpp ñëpp laa la wax di woo buri bu Serigne Saliou di woo am di Samb sama gars yi Fallou Fallou amical borom Kaolack maa ngi koy woo bu baax a baax baax ci bokk combat bi. yaakaar naa am na loo ko bëgg a laaj. waaw am na lu ma ko bëri ah. gën a gaaw combat 4 minutes de bëri daal. ne serpent noir ne Zal Baol bokkuñu man duma serpent noir man bëri naa combat bu gaaw bëri naa combat bu man loolu garaawul. bu bëggee ñu bëri combat bi gën a gaaw ci song bi na ñëw song ma sànni ko mu jeex. waaw waaw. amateur mën nañ ci xaar. mën nañ ci xaar bëri combat bu gaaw lay doon. bu fekkee ne nekk ci man moo nekk ci moom. amateur yi dañu ubbi seen bët xool. dañ koo doole. waaw mais man du ma serpent noir da nga ne Zal ne serpent noir xoolal sama plan de carrière nga xool ñi ma bëreen nga xool ñi caat yaraax bëreen nga siisee nga xool waaw loolu maa la ko kon rendez-vous bi kañ rendez-vous bi samedi la mais da may may ma woote parce que dafa am kilifa yoo xam ne may jàppale ci mais maa ngi ciy jiital sama papa Mbaye nga xam ne man moom du caageen euh, arène moo ñu boole bi may nekk booy lan laa nekk moom ba tey jii dara ñaaw am am na lu mu ko bëgg na ko ni mu def démb loolu moom dama koy féliciter parce que tey bi mu ko defee toog na ñaanal mandam ndam mais mu nekk nit bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla nag ay ndami ndami ndami ci moom ba gis sama gars yi ñoom njool bàyyiwuma gars yi nees tout sama rakk caatu rëbës démb dafa demoon doon wuti ñàkk ma koy gëmloo ne ah lamb noonu la booy wuti mën am chaque jour mais li nga ñàkk ne yàlla nekk li gën ci yow moom caatu waa sama rakk la ti déggal na ma waaw mais mais woote bi moom damay profité di woo waa rëbës bàyyiwuma kenn laa la wa ah waaw sama rakk tiigir tamit euh, moom ci équipe bi la nekk ñoo bokk bëri na démb ñàkk yal na ko yàlla suñu borom continué neexal palmarès am. waa di woo Dakar Plateau laa la wax bàyyiwuma kenn. di woo waa Rëbës mag ndaw surtout jeunes yi. waa Medina sama gaay waa Bawal ak yaay ak yaay sama dëkk maa leen di woo bu baax a baax a baax si combat di po di woo groupe WhatsApp Zal Baol dañ may jàppale 100 pour 100 Zal Baol lu ma soxla instant dañ koy yëkkati di ma ko jox. bu baax a baax. waaw sama grand Omar Ndiaye tamit vraiment maa ngi koy baax. profité nag di woo waa Touba waa Daaru Rahman bàyyiwuma kenn sama yaay mère Roxi Seck maa ngi koy sant bu baax a baax di sant jigéen ñi nga xam tey suñu amee combat ñooy toog mënuñu tudd kii bàyyi ñu leen di wax ñoom ñëpp laa la wax di leen sant di leen gërëm di ñaan ñu yàgg fi trop seen seen njaboot yu barkeel waaw kontaan naa maa ngi woo ñëpp nag faxas yoos amul ragal waaw di ñaan jàmm yàgg fi bu baax a baax